ci leneen njiit kii jiite port di Waly Diouf bu Diouf euh, Bodian teggi na tuuma gi nga xamante ne syndicaliste yi syndicat yi nekk foofu ca port teg nañ ko ci ndoddam moom ci boppam nee na ñooñu dañu jaawale yi nga xamante ni la ñu euh, duppee ci euh, marché yeeg doxalin gi ak coppite gi moom ci boppam nee na dara taxut du ko jëlee ci fi mu taxaw ni en tout cas indi fas yéene indi ay coppite ci mbir yi ba lépp leer ñu teewlu ay kàddoom ci micro Habib fay moom ñu ne anna ba mu yoree port autonome bu Dakar dafa tey xel intersyndicat bi wax li directeur bi moom xaarul lu yàgg jóg weddi tuuma Waly Diouf Bodian ne ñoom liggéeykat yi dañoo jaawale marché yi ndax ba ñuy wax du boobee fii nag moom lu ñu duppee demande de renseignement et de prix la loolu moom moo waral coow li am fii. dañoo rek juum parce que moom ci procédure bi euh, tey suba rek laa ci mujjee waxtaan ak ñi nekk ci commission des marchés bi. procédure bi càmbar nañ ko xool ko gisuñu ci benn benn benn problème ñoom dañoo jaawale procédure bi dem ci beneen forme de marché dañu ci tegal ay exigences yoo xam ne ñun nekkuñ ci marché boobu ñun c'est un marché de euh, de vingt quatre millions euh, benn demande de renseignement et de prix à compétition restreinte respecté nañu li nga xam ne mooy tënk te nekk ci code des marchés. anam ba ñu doxalee ñoom intersyndical bi mu ne. am na ñenn ñoo xamante nit ñoo nekk ci seen ginnaaw di leen jëfloo. boo gisee syndicat yi bind ci ak détail bi ñu ci bi ñu ci àndal mooy que dafa am ñu ne ci ginnaaw di leen pousse pour ñu attaquer marché bi parce que xam nga audit dafa arrangé wul ñu bari. directeur bu port autonome bu Dakar di leen woo ñu yëkkati seen i coono yooyee te def ko ci yeneen i ponk yu ëpp solo. syndicat war na tal leneen lu di wax ci euh, ay régularité marché public marché public euh, ñun suñu responsabilité mooy bu ci bu ci amee lënt-lënt bu ci amee jalgati bu ci am am na ay services yoo xam ne ñoo ñoo koy xool di ko càmbar di ko wax euh, du ay syndicat Waly Diouf Bodian di leen jiiñ baaraamu tuuma ñoom liggéeykat yooye ne bëgguñu lenn lu dul audit bi bañ a am ba sax nu ñuy xoolee nuñ koy yéexalee waaye loolee moom mu ne du ko ba ak lu mënti xew audit bi moom danañ ko def ko réaliser bu soobee yàlla. Euh, defe loolu rek mooy seen problème ñoom. mooy a am mais audit bi day am dañ dañ ko def. bataaxal yu syndicaliste bu port autonome bu dakaar bind jamono ji bëri nag mbiicoog mbalu directeur bi moom ne noppi na ngir jànnoog ña nga xamante nit ñoom ñoo nekkut cab yoon bi mu fi ñëweek ba léegi mu ne amul benn contrat boo xamante ne renouvelé na ko te it amul benn nit boo xam ne jël na ko mu ñëw liggéey si. fii ci biir port autonome